nuyu Cheikh Mbacke Laay di nuyu Maam Diine di nuyu Ousseynou Ndoye di nuyu njabootu wàllu bay di nuyu gépp di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ne tamit moo fi nekkal Serigne Touba di nuyu sama si Serigne Cheikh Fall borom ngaaj bi maa leen di bëggee yéen a tànn seen benn seen dañ koy xuuxal ko sax alliance bi nag moom maa moom xam naa ne instant wax nañu des pareil bi. dañ bàyyi ba gis ba ñu jëflante jëflante laa mu xale moom ñu dëggal rek waaw bu dëggalee boppam moom amateur yi dinañ gis làmb ju neex ndax man moom xam naa ne ci kawam laa jëm moom na nangoo taxaw rek. mais gis naa fi léegi ay say naataango yi ñu ngi la wër. nee nañ daan nañu sa waay bu yàgg. yow looy wax sa adversaire. waaw sama adversaire waaw xëy na gars ñoom liñ gis lan wax rek mais ñun ñu ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo am ndam yàlla may nu ndam entraîné nañ ci combat bi liggéey na li war a liggéey ànd nañ ak sanu ay boobu li ci des nag mooy bés ba ñu jëli ndam li indil ko waa Yoff incha allah. kese mais Yoff am amal ngeen bis boo xam ne da ngeen war a fay. waa Yoff ameloon naa leen bés fay leen bés mais Yoff xanaa ñoom sax xam nga bor bi man dama jàpp ne du jeex ndax bu ma tegle woon téeméeri combat jàpp naa ne bor bi jeexagul. mooy loolu alliance birom moom dafa bokk ci yoon bi rek dañuy ñëw rek incha allah jaaral ko fan jaaral ay moroomam dem xool leneen. mais autorité Yoff yi ñu ngi si kaw wala yow wala yow ñu ngi lay jàppale wala jàppale woon la waaw autorité Yoff yi xam nga boo limee ne ñu ngi may jàppale am na ñuy jàpp am na ñoo xamante ni mooy loolu mais xam nga ñi jàpp tamit mooy loolu ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax ñi jàppul tamit xëy na dañu a jàpp rek ndax ñaxu jàmbur moom loo si am lu ne sante ko boroom mais ñun ñu ngi ay Baay Faal yoo xamante ne même bu fekkee ne dañuy def cent cent sax jox ñu xam nga moom ñuy jariñ ko quoi. caatu ngéwél ñu gis ne caatu ngéwél bi nga ñëw gisuñu nga nga nga xaw a quoi lan la. waaw non géwél yi la doon tëggal wala lan la ko non non géwél yi ma doon tëggal sax tëgg na lu neex xëy na mooy loolu xëy na làmb la rek mais mooy loolu liñ gis tey mën nanoo ñëw stade gis lu ko làmb la mooy loolu danoo nekk si làmb te làmb moom ku ne xam na ak nun koy tegtale rek mooy loolu moo tax ñu ñëw géeme nii mais waaye xam nañ ne ñun ñu leen loo xamante ne day gàtt wala mais sant daal bu baax di ñaan waa képp ñu génne jàpp ci combat bi mobiliser dem esaat ma jàpp waa ji du ma ko daan ko ñu ñibbi si Yoff allah. méthode bi ngay incha allah. samedi. samedi day sori samedi laay bëre. samedi incha allah waaw. mais say supporters ñu toll ñun moom ku ñu xam-xam ne ñun ay mbayaar lan te mbayaar yi label ñu ngi préparé Yoff gépp ñu ngi préparé waa Bambilor ñu ngi préparé waa Kër Ndiallo waa Kër Massar xam bi ñëpp ñu ngi ngi waaj te dina ñëw stade dina gis caatu ah ngéwél lan moo war a lan moo caatu ngéwél luy caatu ngéwél gi waaw caatu ngéwél juddoo ci ngéwél màggee ci ngéwél yaroo ci doon ngéwél daa matal lépp ah, ñun mbayaar yi ab label lan mbayaar warul xaadi mooy man ko koy wax signature ba keroog ñun buñ xaatee bu ñëwee mbayaar dañ nuy taam te bu bés ba dinañ gis caatu ngewel ak sañ-sañ ak ñëw ndox ci kaw alliance birom du ma daan ko lu gaaw incha allah. alliance birom alliance birom nag ndaanaan la ndaanaan ku lu farlil mais xam nga ñun moom li naan ñax du feeñ si taw mooy loolu ñun ay super ndaanaan lan te bu bés ba bu jëflantee rek. caatu ngiwel xam nga gars yi dañoo mis leen si caatu ngiwel muy pré combat ñu ne caatu ngiwel tay mu dee mais bis bu ñu demee ba bëre ba pare dañ naan jinne la wala dugg na fii génn na fii mhm. fii dina gën a garaaw incha allah. est-ce que doo ànd ak ay jinne. non ànduma ak ay jinne mais maa ngi ànd ak sama ay maam maam Njare boo xoolee tey jii la tuuru maam Njare muy sama open press lii rek wax la. waaw noonu la demee. mais tey looy tàggoo ak looy wax supporters yi ba bis waa di wax supporters yi ñu mobiliser wu kan nan daa def autorité yi yoof yi ñoom tamit gën a jënd billet yi ndax man bëgguma ay bio bu ay six car wala ay cinq man damaa bëgg autorité yi jël ay plus de vingt car jël billet yëpp gars yi yëg ay xale lan yoo xamante am na lu ci làmb kon bu amee lu ñu def. gars yi posé kon yow ñoom dafa jóg pour ñu jóg jàppale ñu ndax xam nga caatu gi wala saa yi kenn doonu ko présenté ko tey si open press bu toll nii ak caatu yoof ñuy say naataango di say dëkkandoo nga woote lu toll nii ñoom ñu war a ñëw soutenir rek gisuñu leen lan moo ko waral. waaw gars yi xam naa dañ xaw jàpp rek mais loolu du dara mooy loolu boo leen gisul tey bis ba di leen gis incha allah. gars yi ñu ngi déggante avant mooy ñëw mooy Modja muy Caatu Yoof muy Malick Niang déggante nan waxtaan nan daa am lu leen moo ja daa nekk ci combat xam nga Malick Niang daa dem benn voyage bu ndaw Caatu Yoof tamit daa génne newul Yoof xam nga mooy loolu di encouragé tamit gin bu Yoof ah ay dara suñu benn booy di leen wax ni làmb nii la gin ñu koy wax làmb nii la ah, samedi na ñëw ànd ak ah, ama bu Yoof gin samedi na ñëw bu ngi rakkam allah li nga xamante ni mooy naxari woon na ko yàlla mën naa def samedi mu neex ko ñu leen yàlla may na ndam lan nga wax sa adversaire. waaw li may wax alliance Birame. waaw mooy dernier mot alliance Birame. taxawal nga dëggal sa bopp ñu bëre laa ko man moom ku ne xam na ni caatu ngiwal moom loolu kenn du ko wax man du ma reculer mbayaar waa boo taxawee dañuy daje dañuy rayante mooy li ma wax combat bi yow loo deret ji lu mu gën a bari gën a baax taxawal dëggal sa bopp laa la ñu rayante naa la duma naa la daan bu soobee.